na yàlla na yeex mais ñun ñoo ñëw de Pape Alé de génn àdduna laa ilaaha illallaah inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun yàlla ko yàlla yërëm xaare ko aja ay waay waay ma kee bon ay ma toog fu ñu toog même si ces gens là mérite ñu xeexal leen mais ces gens là boo xool ci yàlla doo leen génn ci loolu parce que ñoom loolu c'est des constateurs dañuy constater rek ah def na lii def na lii def na lii dee na inna la ina arapi arapi arapi te kii def loolu mi ngi fa toog dara changé wul waxoon naa leen DJ Badji dañ ko sotti te sa ba léegi li ma wax mooy dëgg DJ Pape Alé Niang yàlla na gudd fan yàlla na dox ci bàmmeelu Macky Sall Pape Alé Niang yàlla na dox ci bàmmeelu oyof sër yàlla na yàlla defal ko gudd fan ak wér mucc ak muccule yal na yàlla yokk dundam lool mu mucc ayib yal na Pape Alé Niang dox ba taxaw nii ci bàmmeelu Macky Sall yal na Pape Alé Niang dox ba taxaw nii ci bàmmeelu Marème Faye Sall amin amin amin amin amin allahuma amin maa ko ñaanal loolu yal na ko yàlla def yal na Pape Alé Niang dox ak njabootam bañ taxaw ci bàmmeelu Macky Sall na ñoom Pape Alé dox bañ taxaw ci bàmmeelu Marème fay Sall OFC ba jéggi seen bàmmeel ndax yàlla moom <laughs> moom mooy mooy mooy kullu shay'in donc lu ma leen mën a wax mooy lu ma leen waxoon Didier Badji <laughs> man bàyyi ma noppi rek moolaa cay moolaa <laughs> nee nañ génération bu ne yàlla dina wàcce quoi ab doomu aadama bu të të të të sonnal leen xeetu sonnal boo xam ni ñuy def lu neew te duñ ko mën a dara fekk yàlla moo koy génne du du sax sama du sax sama sama bopp du sama kàttan du sama mën-mën yàlla rek moo xëy rek na ma nee tabax ci biir na ma ayca ma nekk ci xare comme Ablaye Wade nu mu demee woon yaanaa maa ne war a génn taxaw kenn mënu leen téye ren yàlla am ñeneen ñu fi indi kenn du leen téye kenn kenn kenn doo leen téye ci benn niveau du mystique du saayir du baatin yàlla muy mooy yabal chaque gouvernement de na ay Moussa chaque gouvernement de na yàlla day yabal ay Moussa ay Moussa yoo xam ne daf leen ngemb nag protéger leen téye leen sàmm leen Pape Alé Niang ci Moussa yooyu lañ bokk ak ñeneen ak ñeneen ma wax dara ma wax jooju day Macky dindeegu ko de dama ne Macky Sall wax ji sonnal na la yook sa njaboot lépp loo leen xalaat ci paxe àdduna def ngeen ko sottiwut te du sotti incha allah lépp nag ci saayir ak ci baatin ma ne ma jox la benn chance ma ne la Macky fa laay demee sangu ji nag ok ma ne Macky Sall li may wax déranger la metti na maa ngi lay yàqal et cetera jéem nga ma jënd sottiwut proposé nga ma àdduna li ci biir sottiwut jéem nga ma neexal sottiwut jéem nga ma jaay doole sottiwut mystique nga sottiwut ma jox la léegi chance ma waxoon na la boo ma génnelee kooru Dj Badji ma bàyyi live te wax nak sénégalais ma mané la lool lépp satul mais chance bima la jox c'est un gendarme d'investigation un gendarme de renseignements généraux mané la bo génné kooru ay famiyam taxaw ni xamé ni la ma bayyi live bayyi la wax de bayyi waxuma ay di ñëw di dem de bayyi gis nga chance bima la may ça fait bientôt un mois munoo un mois munoo parce que man dafa ko teg fu wóor lu tax ma défier la dangaa jàpp Didier Badji sotti ko acide acide acide sulfurique bu nga jaxase ak laso sotti ko Didier Badji kooram bi rey ko sotti ko ko muy tàkk di tàkk di tàkk bu ñuul kukk ba jeex tàkk seey mu lekk acide sulfurique bi mélangé ak lasu bi ba nga def ci barigo bu sotti ko Didier Badji ba mu seey moo tax ma jox la ma défier loolu parce que dama xam ne doo ko génne di Badji def na presque mois quinze jours ba léegi Didier Badji génnewoo wee weeyam sax mënoo ko génne <laughs> Macky dama la infiltré Macky dama la infiltré Macky yow dama la infiltré dama la défier parce que dama xam fu ma ko teg te li ma la may chance la boo xam doo ko doo ko mus am moo tax bëri temps yee nga ngeen gi yónni gars yi naan ah am na benn koor bu ñu gis de nañ xool avocat mi ak mbokkam yi dem xooli ba xam kooku du moom mbokk yi ñoo ne oh gars yi Mollah sama Mollah laay bi tey mu jeex eh, Mollah waroon dugg ci loolu nan da ngay défier Macky Sall wuy sama Didier Badji gars yi nee nañ am na koor bu ñu gis de Mollah mbaadu moom man leen bu ñu gisee Didier Badji bu ñu gisee Didier Badji maa ko wax damay bàyyi bu ñu gisee Didier Badji gis nañ Michael Jackson. DJ Badji kooram bu ñu ko gisee gis mooy Michael Jackson mi ngi fi ñu dem ñëw gars yi ah la gisuñu tous kooku du DJ Badji duul <laughs> ma ma woo ay avocat ak mbokkam ne leen kaay leen DJ Badji dañ koo sotti acide sulfurique buñ mélangé ak def ko ci barigo yóbbu yóbbu leen jàllaaw foofu lañ ko dóor ba mu dee ñu daggate ko sotti ko acide bi ba mu seey DJ Badji kenn munu koo teg bët DJ Badji dañ ko sotti acide sulfurique ba mu seey te ba suñ jonn yàllay tey maa am dëgg man du ma président Macky Sall di waat di fen man damay waat di ko teg ci dëgg kenn du ko génne maa ngi ñëwaat maa ne Didier Badji jusqu'à l'extinction du soleil ay mbokkam ay avocat am ay jegeñaalem ay am di jàmmam duñ ko teg bët duñ ko teg bët duñ ko teg bët Didier Badji a été assassiné dañ ko sotti acide sulfurique lakk ko muy tàkk ba jeex tak, tak, tak di ruy Didier Badji dafa ruy ba jeex tak Didier Badji dama ne ba adduna tukki jusqu'à l'extinction du soleil ba ñuy wàcc soleil bi yalla di ko wàcce di lem soufsi do len tek ba bët Didier Badji do len tek ba Didier Badji ba suñu jonn yalla tay yalla man lamay deug kon nak suba inshallah à 20h GMT dañuy def la continuité de opération rëbb dëmm di leen wax ni bonne fête bonne fête euh, joyeux Noël et à demain inshallah. peace and love and I'm out man ma dem sangu ji dox samay soxla ak samay lëjjanti yarama la famille today concert buñ nga xam ni man bokk na ci parrain yi gaay euh, au musée de la civilisation TRG show taru rap sen rappeur yep nañ fa nek tous ensemble ñu sagal sargal ndaanaan melni man donc man lañuy bok na ci ñi sargal ak ñi sagal mustafa jen di euh, m di Mustafa, bu Dabrens moy def show bobu yora les matadors les Roman, les Simon, les euh, Gaston, les une génération les Degeti Awadi donc man la sagal pour Awadi Euh, tenori quoi Matador Degeti comment, ma fa sagal donc bolé mom mom Tafa bolé na ma ci ñimi sagal Tay, tay la TRG show taru rap sen au musée de la civilisation manam wetu grand théâtre taqaloog mom vous aurez un show inédit en son et lumière donc voilà mi ngi noonu euh, il se peut ma ñëwaat nak il se peut ma ñëwaat dafa am ben ben manam. ndigal bu may xaar ci ab kilifa tay il se peut ma indil len audio ci kanam ci kanam dina len indil audio inshallah allah ci ndigalu amna na lu ma xam nga audio itam damay laaj ndigal amna ab kilifa gi ma laaj ndigal pour tay est ce que fête bi mën nañ génne ben maa xaar bu mané waw rek est ce que dañu am ay kilifa ñi ñi jité ci xex bi di ñu tëñëx tëñëx pour bugg rek maa njëkk a génnee siiwu nangam naa man dara intéressé wu ma ci xeex bi li ma ciy xeex mooy dama bugg Sénégal changé point ay am ci tour intéressé wu ma maa ko def intéressé wu ma maa ko génne intéressé wu ma ça m'intéresse pas j'y gagne rien du tout damaa am ay kilifa ci xeex bi dama am ay njiit ci xeex bi dama am ay leader ci xeex bi donc kenn ci samay leader dóor naa ko message mu ma jógee message tak tak tak tak damaa bëggoon est-ce que am na audio mun nañ génne audio pour Noël yi mu doon joyeux nowel fête bi nga xam ni ñun ñëpp a ko bokk ñu génne ko def ci cadeau parce que Noël c'est la fête des des bonbons des cadeaux donc dama bëggoon euh, ñu génne benn audio mu doon feetu Noël bi ñu jox leen ko cadeau donc maa ngi xaar kilifa gi. gisagul message yi bu ko gisee rek ba na ma bismillah rek ñu dañ leen sànni benn tey pour spécial feetu Noël yi donc euh, maa ngi xaar ndigal dégg nga donc bu génnee rek incha allah dinaa leen reveniraat tey tey tey tey tey incha allah jox leen audio bu bu doy waar waay <laughs> jaajëf mais bu bu bu ma jotee ndigal li rek moo jotee ndigal rek naa def signe ne dans trente minutes live moo jotee ndigal li rek dinaa leen wax ne dans trente minutes live ah jaajëf xéwal bége bége bége xaar ma xool sax est-ce que est-ce que gisagum na ko est-ce que gisagum na message bi ba leen ma de may xool rek ba xam est-ce que gis na message bi bu ko gisee rek laa ilaha illallah yónnee naa ko message di ko laaj parce que xam rek ok non benn flash la def benn flash benn flash la def ah. d'accord kon ñu xaar tuuti gaay yi benn flash la def ñuy xaar rek dégg nga bu ñëwee rek ñu def ko dégg nga waaw bu ñëwee rek ñu def ko kon ñu dem jaarama a ci kanam wala a deme rek incha allah a ci kanam wala a deme incha allah ah ayca ñu ñëw sangu ji waay Live a life you deserve. You deserve. we That's how we do. ain't forget the roaches and mice. I ain't forget all that. Saturnaala pare naa de amee sangu ji de man maa moom sama boobu de man nag si si vacance laa nekk vacance no doubt no doubt no doubt. Not niggas I really met through music shit. Some real thuns I grew up with. Phone calls from the fans, long stories so fast. Wishing they get home in a hurry, cause we the last of a dying pack of lions. Nightmares of the cast, thoroughbred surviving, you know. Welcome home, Ronnie Bumps, and love the Corley. That boss ordered us lobster tails late night in 40. We was out there trying to rid the stress. Had to be take from stretch, rest. Black tech, black vest to master dark aura. We hit the city deep in the explorer. Looking at the source, wish I was the cover story that was coming shortly.